bilan bo xamanteni bilan bu satisfaction la parce que comme ni ma ko waxee malgré discrimination bi nga xamanteni la fédération sénégalaise parabasket en fauteuil roulant mi ngi subir subir euh, djem ci société nationale yi nga xamanteni dañ fi nek di soutenir le sport en général mais bu fekkee ni parabasket bi la duñ sax faale bo len bindé duñ la tontu donc discrimination la boo xamante ni bu subir la mais malgré discrimination boobu tey yàlla suturaal nañu ba organiser nañu championnat national ba tey ñuy jouer les play-off play-off yoo xamante ni tey pour la première fois dans l'histoire ñu am ci ñetti région yoo xamante ni ñëw nañu euh, première heure bi comme ni ngeen ko gisee Mbour moo doon jogante ak équipe bu Ziguinchor gagné ko moment bi may wax Pikine mi ngi daje Kaolack sauf changement euh, ñi ngi dem ci ben finale bo xamante euh, entre Pikine lay doon ak Mbour mu nekk une très grande première c'est la première fois équipe bu Mbour bi qualifié finale euh, bu dee Pikine bi moy 6 sixième fois d'affilée muy dem finale maintenant liñ ci liñ ci liñ ci liñ ci noter rek moy également euh, le non participation bi nga xamante euh, Dakar Plateau Bion parce que chaque année da daan ñëw mais bion d'un dañ ko télé a éliminer ñëwul ci le grand regret bon di ñaan ñu dem rek pour que nous ñu en force. final bi kañ ko prévoir le 23 septembre Inch'Allah marie Ndiaye li tax ñu ñu le 23 parce que ci digënté bi équipe nationale para basket ginaaw bi mu qualifié ci Jeux africains yi fay des Ghana pour défendre les couleurs du Sénégal euh, nous avons koy à partir du 2 au 13 septembre euh, équipe nationale de regroupement le 20 août euh, donc objectif bi de gagner gagner trophée bi Sénégal ba permettre ñu nous qualifier les Jeux paralympiques en 2024 liñ ci comme ministère des sports bu championnat national la ministère dërëmam di ci dugg mais bu dee compétition international comme eh, équipe bi war a dem ni Ghana lépp ministère moo koy jël en charge euh, ñi ngi dugg regroupement le 20 moo koy jël en charge billet d' avion yeeg bu ñu demee hôtel bi ñu logé yëpp moom moo koy jël en charge ñu leen ci remercier parce que foofu au moins mun nañu wax ni ñun ak yeneen fédération yi ñoo bokk même traitement ñu war ci dugal plus de 35 millions yoo xamante ni pour def ko ci pour ñu mener dem voyager dans les meilleures conditions. ah présent, merci beaucoup. merci jërëjëf. donc trois, bi les deux premiers ñooy qualifié wala premier mooy qualifié. ban ci. non Accra bi. Accra bi non ki ki jël trophée bi benn mooy génn mooy dem représenter Afrique ci Jeux paralympiques kenn génn. di ñaan ngeen ñaanal yi ak joueurs yi puisque affaire affaire bi yàgg na métti na mais euh, ku nekk jàpp na ku nekk jàpp na ah, par rapport ak li ñu am ba vraiment ah, yàlla may ñu ren ñu mën a final donc euh, dama naan félicitation daal au aux joueurs et aux dirigeants. waaw ngeen jógee sori na. mais ah? dafa ngeen jógee sori na Mbour. waaw ngeen ñëw Dakar Colobane mais mën tey euh, coono Fatick bi ñëw si résultat bi. bon c' est que da ñëw mooy mooy problème dugg dakaar moom embouteillage la. waaw moom embouteillage la xëy na moom teel a jóg daal mooy solution teel a jóg rek mais sino moom dugg dakaar moom jafe-jafe vrai jafe-jafe la bon maintenant il faut que tamit léegi. nga ñu jéem a adapté wu rek waaw jéem a adapté wu rek bon par rapport ak trajet bi ak kii bon heureusement que man ay xale laa yore mais ba sama équipe moo gën a moo ëpp jeune tu vois par rapport ak groupe yi fi nekk yëpp waaw donc donc là au moins dinañ mën a supporter yi quoi. final nga nar a rencontré équipe boo waaw waaw Pikine mooy favori bi. ñun ñun ay outsider la rek ñun ñu ñëw am lu ñu jéem a wut dara waaw si su possible tant mieux su possible ñu xam ni que rek dañoo dañoo war a jàngiwaat dañoo war a liggéeywaat donc moi di dis que donc vraiment mbégte la mbégte la si man que fi ma nekk nii à mon âge mënoon naa toog mais que dafay évoluer si au niveau de valide ah valide puisque foofu laa kii lii musuma si def formation. musuma si def formation bon mais gis naa leen ñu bëgg moo tax mu ñëw di leen jàppale donc donc tey jii suñu tollee foofu vraiment dama naa ne rek jaarama jaarama. waaw ngeen di jànkuwanteel. waaw jafe-jafe ngeen di jànkuwanteel. waaw jaf waaw waaw jafe-jafe yi am d'abord muy fauteuil puisque fauteuil yi mooy mooy mooy godaasu godaasu euh, euh, jour yi su amul fauteuil mënoo bas mënoo def andi basket ensuite ba pare suñu dirigeant dañu wéet. Euh, pour euh, si euh, ñu leen jàppale parce que amuñu ñu leen jàppale amuñu ay loxo yu leen jàppale c'est que xëy na nit nature discipline bi la donc c'est nit ñi depuis souvent bon ñu naan ah gars yi de duñu ko duñ ko yëg sax que li ñuy liggéey pratiquement dañuy nekk xaw a nekk réserve li ñuy xaw a isolé wu loolu mooy une problème bi mais population bi nag la ñuy demandé vraiment ñu ñëw jàpp jàpp si jàpp si xam ni que ñii ñii ku leen jàppale jàpp jàppale sa bopp la puisque je dis que de euh, fait que ñoom ñiy ñëw di basket di wala di liggéey donc dina tax lu bari kenn yelwaan bi dina wàññeeku. te te vraiment euh, au niveau de Mbour ga euh, directeur bi mi ngi mi ngi si jàpp bu baax a baax si au niveau de la formation formation métier bi man loolu daal mooy vraiment mooy suñu problème te daal nañ ñëw jàppale ñu te ñëw di ñu seetaan puisque soo soo seetaan doo doo ko découvrir donc dañ ñu leen di wax ñu ñëw seetaan ni ñëw di seetaan su boobaa day day gis xam ni que ah rafet na neex na te ba pare day encouragé nit ñi ñu gën def effort waaw. comme nan ko waa ah ah, eh, ah. Ibrahima Bass. comme ni ñu ko waxee sànq qualification finale bi. est-ce que dina yaakaar nga dina ubbil yenn buntu sa joueurs yi pour ñu bokk équipe nationale andi basket par exemple. bon euh, fi mu nekk nii waa. dem nañ final fi mu non waxuma dem final parce que mais c'est que ñun pratiquement on fait partie des trois meilleures équipes. pendant pendant quatre ans ci trois meilleures équipes la ñu bokk bon seetaan ngeen match bi seetaan ngeen match bi sa euh, euh, sama numéro 10 bi ah mooy njool bi ah gis ngeen ko. Euh, moy ku ko gis basket ak parapore ñi ya, mo la gëna nek xali mo la gëna nek xali bo la gëna gaaw bo la ki mais nak c'est que dafa am yo ya dafa am problème problème am na au basket and basket amul formation man dama ñëw sama xam xam basket ki la sama observation ñëw di pour di dé entraîner amul ben formation waaw ñëw rek chaque chaque année ñu daal def bon <laughs> loolu mooy problème bi waaw. Ah, waaw baax a baax ñu mayee ñu dem encore une finale. ça a été un long travail nag liggéey bu yàgg la ci ci terrain bi quoi vraiment. parce que gis nañ ni Mbour ngay am Mbour mi ngi doog a dem finale mais tamit mu wan demi finale déjà xaw na rassuré est-ce que natta doon équipe bu mën a jaaxal fi dem si finale bi. non ñu ñëw pour jaaxal ak leneen notre objectif c'est le grand chelem. maanaam tub yi fi nekk yëpp ñu raafale mooy suñu objectif d'abord moom la ñu moom la ñu signé woon ak ñëpp ak waa Pikine déjà on a eu les deux léegi dese nañu ñaar suñu objectif nekkul ay mbuur ak leneen ñun l'essentiel notre objectif c'est la finale de gagner la finale mooy suñu objectif. gis ni coach principal bi nekkul woon ci banc bi est-ce que mën nañu xam li ko principal bi dafa amoon euh, sanction dafa amoon benn match daa crié contre mu yuuxu ci kanamu arbitre bi après mu am disqualification. am deux matchs benn match automatique ak benn match léegi bee su jeexal na ko mais bii nag moo nekkoon automatique avec une sanction benn cinquante mille francs bu ñu ko amaan quoi. loolu moo taxoon man ma ñëw comme man maa nekkoon adjoint am ñooy liggéeyandoo tous les jours. mu ne ma il faut nga ñëw ci parce que tey aussi man amoon naa match mais j'ai refusé man damay ñëw pour soutenir sama gars yi fii quoi. Hmm. pour suisse que Pikine ba ànd basket am na ay jafe-jafe yu muy jànkuwanteel. waa actuel non actuellement nii peut-être sur le plan technique. on a un joueur et un élément boo xamante ni daf fi jóge waaw ñëwul moo gis tey Pikine dafa wàññeeku on est on a joué à huit xaw ma à à neuf kooku tamit dafa bokk si ci diggante sur le plan administratif ak yooyu moom je le sais au président moom mooy wax lu fa nekk mais matériel non non on, on travaille bien on a des matériels on a des plots on a des ballons ñu ngi liggéey daal. est-ce mën nañ xam joueur yi kan ak tam fan la dem. moo joueur boobu moom euh, mënuma wax fan la dem actuellement mënuma wax fan la dem ni ngeen ko ni ko nit ñi déggee rek laa ko déggee dem na demoon na championnat d'Afrique xaw ma euh, éliminatoire en France après affaire yi jàll mu toog. Mais c'est un élément clé, c'est le capitaine Ahmed ah, vraiment, il nous a beaucoup manqué, vraiment nous voulons remercier beaucoup, surtout les journalistes on souhaite que vers les centres de formation parce que la crème la base du basket c'est le centre les centres de formation il faut que nous surtout les journalistes affaire gars nous sommes ñu nit ñi nga xam ne ñooy nekk si foo ngeen ñëw dafa reportage nit ñi xam ne affaire bi ci suuf la avant muy yegg si kaw vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax bu baax a baax seen taxawaay rafet na